mbokku internet yu bàyyi xel fii ci Feeling Dakar dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi ñu tàmbalee ko ak li nga xamante ni moom moo di euh, jàngoro bii di coronavirus ci biir dëkk bi nga xam te ni ñëpp dañoo jug taxaw euh, ngir xeex li nga xamante ni moo di euh, coronavirus boobule ba tax na sax ki nga xamante ni. moom moo di président de la république euh, daal dina tëj li nga xamante ni moom moo di université yi ak euh, école yi ci lu toll ci trois semaines ba tey ci li nga xamante ni moom moo di xeex coronavirus boobu le sax ginnaaw bi nga xamante ni nii mun tax Mountakha Mbacké daal dina joxe lu tollu ci deux cent millions de francs CFA ngir jàppale li nga xam te ni moom moo di état bi ngir xeex euh, ci coronavirus boobule ki nga xam te ni tam moom moo di Youssou Ndour yëkkati na ay don daal di koy jagleel ki nga xam te ni moo di ministère de la santé ba tey bu ñu wëyalee ci li nga xam te ni moom moo di xeex coronavirus boobule sax ki nga xamante ni moom moo di Waly Ballago Seck daal dina yëkkati cinq millions de francs CFA euh, daal di koy dimbale état bi Pape Diouf tamit waxi noppi daal dinay joxe euh, lu toll ci six millions de francs CFA ba tey ñu woyal ci li nga xamante ni moom moo di coronavirus boobu la sax ak li nga moo di Y'en a marre Y'en a marre ñoom ñu daal di euh, xamle rek mooy ki nga xamante ni moom moo di président de la république dafa war a euh, arrêté lépp li nga xamante ni vol la muy euh, jóge beneen dëkk muy ñëw fii si Sénégal rawatina dëkk yi nga xamante ni dañoo daal di amee coronavirus boobu la ba tax na sax ñoom bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi dugal coronavirus boobu na sax ci yeneen dëkk yi lañ jóge dëkk yi nga xamante ni coronavirus bi dafa daal di euh, law trop lu ci mel ni Italie ba tax na ci wàllum coronavirus boobu noonu sax euh, li nga xamante ne ni moom moo événement religieux yi fi waroon a a am sax euh, daal di nañ koy annulé bi a am démb mujjewul am appel bi ñu dëgmal ba tax na sax kazu rajab bi annulé wu ñu ko waaye daal nañ changé anam yi nga xamante ni moom lañ ko daan amalee ba tax na daal bu ñu ci ki nga xamante ni ni moom moo di Serigne Ahmad Badawi Mbacke moom na lu daal di xamle rek mooy fépp fu waaye nekk rek mën nga fa euh, màggale li nga xamante ni moom moo di kazu rajab bi ku mu neex tamit mën nga euh, ñëw fi nga xamante ni moom moo di Touba waaye daal euh, rassemblement du am ñu jeexalee ko ak ki nga xamante ni moom moo di Mame Gor Diazaka naaw bi nga xamante ni Ousmane Sonko dafa àddu ci décision bi nga xamante ni Macky Sall daal dina koy jël ci li nga xamante ni moom moo di lépp loo xamante muy rassemblement moom Mame Gor Diazaka nag dafa daal di attaqué ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko di wax rek ni ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko amul benn charisme pour nekk li nga xamante ni moom moo di président ndax moom Ousmane Sonko euh, lu mu war a def rek mooy euh, génnee xaalis euh, jàppale ko li nga xamante ni moom moo di état bi ak li nga xamante ni ni moom moo di ministre de la santé ngir ñu xeex ci li nga xamante ni moom moo di coronavirus moom maam go jazaaka lu mu ci daal di doole rek mooy ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko nag Macky du moroomam ndax ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko jekkul benn yoon ci li nga xamante ni moom moo di président mbokku interne di lañ leen andiloon ci ay xibaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm ci suñu yeneen xibaar